war jëkkee mooy fàttaliku euh, naqar bu ak événement bu metti bu am le 26 septembre 2002 ci Sénégal nga xam ne bés boobu pour yéenoo moon waruñu ko fàtte mu am accident bu metti ci bateau le ay néew yu bari tëdd ci ay famille yu bari loru ci mën nañ jàpp ne benn famille Sénégal sax muccul ci jéye bu mel donc bu ñuy tàmbali woon nañu fàttaliku ñooñu ñaanal leen yàlla ñaanal ñi nga xam ne seeni njaboot ñoo ci loolu yàlla yóbbu leen si ajal yi gën a kawe ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi porté gis boobu ñu profité ci occasion bi pour feeñal leen sunu engagement ak suñu solidarité ci épreuve yi nga xam ne ñoom la ñuy kaw euh, gannaaw loolu nag li bëggoon mooy. groupe bi nga xam ne mooy groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar nga xam ne mooy groupe majorité présidentielle ñu formé ko ci assemblée nationale à la suite des élections du 31 juillet nga xam ne élection yi li mu wane mooy taaru démocratie Sénégal ak dëgëram ak respect bi nga xam ne président Macky Sall respecté na ko calendrier républicain ku nekk xam na ne 2022 ñaari élection moo ci am janvier mu am élection juillet mu am élection loolu bariwul ñoo xam ne am nañu boobu worma ak sàmmonte ak agenda pour mun ko def waaye loolu loolu ñu koy sant euh, féliciter ko mais féliciter surtout le peuple sénégalais pour pour pour attachement à la démocratie ak maturité bi nga xam ne war nañ ne élection yi jàll na si yoon dem na si jàmm député ñu waroon fal fal nañ leen loolu nag dafay wane ne rek peuple bi moom gàcce ngalaam li ci des nag ci député yi la dese ak ñun ñi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale mooy mérité confiance boobu peuple bi placé ci ñun ni ñu koy mérité nag du ci ay wax du ci ay doonante du ci ay yàq mooy déglu askan bi ci seeni préoccupation ak seeni bëgg-bëgg gunge gouvernement bi dans la résolution de ces problèmes loolu ñun ci lañu nekk ci loolu lañ bëgg taxaw moo tax ñu ne dañ ko dañ ci def suñu képp kàttan ba nga xam ne gouvernement bi nga xam ne mooy gouvernement président Macky Sall ñu koy soog a nommé ak premier ministre ñu leen di félicité ñu ngi leen di feeñal liggéey boo am solo boobu nga xam ne moom rek mooy liggéey mooy satisfaire les préoccupations des populations du Sénégal dinañ taxaw tuuti nag ñëwaat ci li xew assemblée nationale le 12 septembre mu nekkoon xew-xew bu metti bu triste bu yàq image démocratie parce que jàpp nañu ne peuple bi nga xam ne ñoo ñu fal enjeu yi fa la gënoon métti te pourtant peuple bi comprend na enjeu yi ba ànd ci ak ñun malgré la diversité malgré les problèmes ñu mën a dem dans le calme et la paix dem voté ci donc loolu leçon la bu ñu peuple bi jàngal mais dafa mel ni comprendre lu ñu leçon boobu le 12 septembre parce que ñun ñoo war a mën a gën a xanaa mën a voté ñeneen mais malheureusement le 12 septembre gis ngeen li fa xew yéen ñu ñëw benn opposition boo xam ne jàpp nañ ne dañu bëggul woon def élection effectivement ñu ko Olof Njaay di waxee ñaar moo man kenn te ñett du bëri ñun 83 députés la ñu am yoo xam ne dañu toog ñun ñëpp ñu waxtaan suñu biir. am ne ñun ñëpp incha allah ñun ñu am majorité absolue bi contrairement ñu doon wax dañu am majorité majorité bi wax dëgg yàlla mënoo am 83 ñeneen ñi am 53 ñeneen ñi am 27 ñu am deux non inscrits ñu ne amuloo majorité majorité bi nag ci bureau assemblée nationale lañ ko waroon voté ci palu président assemblée nationale ñoom amuñu majorité mais aussi déggoowuñu seen biir parce que pour la première fois dans l'histoire politique Sénégal mu am ñaari candidat boo xam ne presque même groupe parlementaire moo leen déclaré ñaari candidat ñu ñëw taxaw xam naa ne c'était pour cacher un peu seen division ak seen faiblesse moo tax ñu cramponné wuñ ci ay arguments yoo xam ne c'est des arguments fallacieux benn bi liñ njëkk a wax mooy assemblée nationale ministres yi amuñu ko yoon man mii yàlla xam na ne bi ma dégg ñu ne ministres yi waruñu ko toog man ministres yi ñëw représenté gouvernement bi laa ko ñi nekkoon foofu gis ngeen ne bi président bi ministre Samba si ñëwee dafa ànd ak yeneen ministre ministre de l' environnement mu ngi fa woon ministre microfinance mu ngi fa ministre actuel ministre des sports mu nga fa man pour ñoom ñoo lay waxal bi ma gisee loolu dama génn ma ne bon nañu wax ministre yi nañ dem ñu bàyyi fa rek le ministre qui représente le gouvernement effectivement aussi tous les ministres sont partis mais ñu waxuñu ministre seen i population fal leen ñenn ñi ci liste nationale ñenn ñi ci liste départementale ñu dem xeet nekk ay député élu loi bi li mu wax dafa yëpp dafa leer dafa ne bu ñu la xasee fal nga nekk ci situation d'incompatibilité am nga juróom-ñetti fan pour sa situation d'incompatibilité nga dindi ko loi bi dem na ba ne boo ko dindiwul dañuy jàpp ne fonction bi nga mujjee bi nga mujjoon am avant ngay nekk député fonction boobu la ñuy dindi c'est-à-dire vous êtes parce que loi bi dafa considérer li ñuy wax prééminence de la fonction élective sur la fonction nominative loolu ñoom xam nañ ko ba nga xam ne ki doon porté loolu boobu débat mu nekk président groupe parlementaire Yewwi il était dans la même situation que les ministres parce que frappé d'incompatibilité te mu ngi ci salle bi bëgg fa toog ñeneen ñi nekk incompatibilité ci ay waxam moom mu bañ a bëgg a traité boppam comme ku nekkul situation incompatibilité bëgg ministres yi génn des ministres qui donc loolu day wan ne rek loolu ñu doon wax ci incompréhension gëmuñu ko en réalité élection lañ doon bañ beneen bi mooy nañ def ay bulletins aux couleurs des candidats loolu aussi il faut ñu rappeler ne assemblée nationale dafa am règlement intérieur bu fa nekk règlement intérieur bu dafa organiser na la ñuy defee élection ni mu ko organiser mooy élection président ak membre bureau élection au bulletin secret au scrutin secret bokkul ak élection bi nga xam ne mooy li ñuy wax scrutin public ñoom nag dans un premier temps li ma jàpp ñu waxtaanee ak ñoom amoon na confusion entre les deux élections maanaam le scrutin public defoon nañ ci confusion avec le scrutin secret bi ñu waxtaanee gis nañu ne effectivement loolu mënul nekk parce que ci scrutin boobu loi bi dafa leer mooy article bi ma leen visé fii mooy article quatre vingt quatre quatre vingt cinq article quatorze boo fa demee dafa la indil ñaari type bulletin dafa la indil bulletin blanc bulletin blanc boobu la ñuy bind. turu candidat yi ak benn bulletin bleu ou blanc rayé de bleu ñaari bulletin rek moo mun a am si élection bi donc mënuñu improviser li nga xam ne dañ ko doon liggéey depuis le règlement intérieur est là ñu ciy fal ay président di ci falaat ay président di ci fal ay bureau ñu ñëw ba benn bés ñu taxaw ne dañuy changer les règles du jeu au nom de quoi te règlement bi wax lu leer ñëpp xam ne lii dañ ci war a tënk donc loolu moo tax daal ñu ñaawlu li nga xam di wax ne ñun ñu yónnee assemblée nationale du loolu du nekk fa di xeex di xuloo di saagante ak dóorante dañu yónnee assemblée nationale ñun xam nañ ko groupe de la majorité présidentielle et conscient que ñun dañu war a nekk dans une dans une démarche de rupture maanaam réhabiliter l'image ju député mais aussi wan askan bi ne ñun ñoom ñoo fal te seen i préoccupation rek la ñuy moo tax ñu ngi condamné li xam ne xew na fa ak di féliciter aussi la présidente de séance euh, la présidente Aïssatou Sow Diawara ci liggéey bi nga xam ne def na ko ci bés boobu malgré fitnaal yi malgré saaga yi malgré ku dafa taxaw avec beaucoup de sérénité conduire les travaux ci ci ngor ak ci courage ba nga xam ne li mu waroon jël comme ay matuwaay yëpp jël na ko ba assemblée nationale fal nañu président bi te loolu la ñu bëggoon parce que li nekk mooy majorité kenn war ko mën a bloquer ci assemblée nationale dans les mécanismes yooyu mu utiliser c'est des mécanismes aussi qui sont prévus par le règlement intérieur donc madame la présidente ñu koy féliciter di ko ndokkeel ci taxawaay bi mu taxaw ba nga xam ne fal nañu suñu président assemblée nationale sur quatre-vingt-quatre voix exprimées mais quatre-vingt-trois yëpp dañu d'accord ne kii mooy nekk suñu président donc loolu aussi mu ngi nekk palaay koo xam ne presque à quatre-vingt-dix-neuf pour cent du bi mu ngi sant di gërëm aussi population sénégalaise parce que bi xew-xew bi amee ñu bari jëm nañ def manipulation ñu bari jëm nañ ko présenté ne mais li ñu gis ci ay jàngat dëgg-dëgg mooy population yi xam nañ di xew foofu toute obédience confondue condamné nañ dafa xew wane ne li ñu def c'est irresponsable te warul am place ci assemblée nationale bi nga xam ne ci règlement intérieur d'abord li mu wax mooy débat yi fa war a am dafa war a nekk débat a am mais presque loolu la ñu d'accord le 13 parce que même texte yi ma leen limal nii moom moo gouverne aussi l'élection des membres du dañ ko def li am différence rek mooy bii scrutin uninominal la mooy benn tur mooy génn pour ñu fal ko mooy président assemblée beneen bi scrutin plurinominal la mooy ay tur yu bari ñooy génn mooy mooy les vice présidents qui sont huit les secrétaires élus qui sont six et les questeurs qui sont deux noonu la ñu def. même texte yi lañu appliqué même bulletin yi lañu appliqué bind ci bulletin blanc bind ci turu candidat yi ñun ñëpp ñu ànd dem voté ci ko donc li ma jàpp mooy am na leneen loo xam ne war nañ ko leeralal askan bi seen attitude pourquoi ñu def loolu nekkul ci ay texte nekkul ci dara xam ne ñun nombre bi ñu am mooy la majorité ak suñu démocratie ñoom jubóowuñu déggoowuñu loolu la ñu bëggoon a nëbb moo tax ñu dugal nit ñi ci coow yu bari ak yu mel noonu ak peut-être bëgg ay poste parce que xam nañu ne euh, le le treize pour pour pour voter ay membres bureau ay vice président ay deuxième vice président troisième vice président pour voilà donc ci loolu d'accord nañ ci parce que boobu c'était peut-être le Patio et le Seto donc wax dëgg yàlla loolu war nañ ko ñaaxu bu baax te loolu aussi day wane rek seen mauvaise foi parce que li nga bañ démb le douze moom nga nangu le treize parce que simplement ça profite à l'ensemble du groupe leneen li mu bëgg a yokk nag mooy ñu rafetloo mise en place les membres du bureau ak la ratification des commissions nga xam ne ñun commission yi am nañ si juróom-ñaar loolu tamit day wane ne majorité bi ci ñun la ne parce que bu dee commission yi quatorze la Benno Bokk Yaakaar am sept mooy Benno Bokk Yaakaar moo am majorité loolu aussi da koy wane bu dee secrétaire élu six la Benno Bokk Yaakaar am trois ñeneen ñi ñi am deux keneen ki am kenn moo am majorité à l'Assemblée nationale donc ñu ngi gërëm ñu euh, féliciter aussi les vice-présidents les secrétaires élus et les nga xam ne fal nañ leen ci assemblée nationale di jàpp ne bu ñu continuer liggéey boobu ñu def le treize wax dëgg dinañ am xel bu dal ne session unique bi nga xam ne ñu ngi koy waaj ubbi ci mois d'octobre bi dina nekk session boo xam ne dina nekk lu gën ci askan bi wane beneen taxawaayu assemblée nationale mooy assemblée nationale bi nga xam ne dafa jëlee askan bi liggéey pour améliorer les conditions ñun nag mu ngi leen di wax que ne feuille de route du président Macky Sall tracé gouvernement sur les urgences sociales ñu mën ci lim cherté de vie maanaam dund bu ak inondation yi ak emploi des jeunes ñun ci loolu la ñu bëgg liggéey liggéey ko ak gouvernement bi ba nga xam ne dinañ gis ay coppite yu am solo yoo xam ne euh, dinañ ko constaté ci assemblée nationale ci posture député de la majorité présidentielle. mais aussi seen taxawaay ci seen liggéey taxawaay bu mat sëkk ponctualité ci liggéey bi exemplarité dans les actions travail de terrain et de proximité ñun loolu moo nekk suñu suñu ADN bi nga xam ne bëgg nañ ko imprimer dans la marche du groupe parlementaire di féliciter wax le premier ministre qui a été élu euh, les membres du gouvernement di leen wax sans complexe on est une majorité parlementaire qui travaille autour des urgences et des orientations stratégiques du plan Sénégal émergent, donc à l'écoute du président de la République et du gouvernement pour l'accompagner dans la liggéey boobu nag dañ koy def en toute responsabilité assumer ko ba mu mat déglu population yi liggéey ak ñoom ci contact ci proximité ci jegeleen ci travail de terrain ba nga xam ne wax dëgg dinañ gis ne député yi ñu fal ci groupe parlementaire en tout cas Benno Bokk Yaakaar ay député yu bëgg liggéey ak askan bi liggéey ak toutes les forces vives ba nga xam ne li ñu bëgg mooy dëkk bu am jàmm am paix parce que ci loolu la lépp xaj mais aussi ay institutions qui incarnent cette volonté de paix et de stabilité nécessaire au fonctionnement de toutes les institutions ñu leen di gërëm leen sant di nekk ci seen pour les questions réponses di ñaan la comme on est à 16h35 euh, ñu a gàttal yëf yi ba nga xam ne en une heure de temps conférence de presse bi dinañu mën a xaj ñu ngi leen di gërëm di leen sant